article téeméer ak fukk ak benn ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn nekk ci code de la famille nekk na ay dogal yoo xam ne dafay gënale loole di gis-gisu mouvement féminin fii ci Sénégal chefu projet voix et leadership des femmes muy VLF jàpp na ne at bi xale bi war a am ngir ñu dugal ko ci néegu sëy dañu ko war a yokk bu ñu sukkandikoo ci moom fexe ba xale bi am baay loole tamit bokk na ci ay jafe-jafe yu nga xam ne mu ngi gën di fës ci réew mi. ñu gis ne ñaari article yi jar na taxawaat ñu waxtaan ci pour mun a fexe ba nga xam ne xale bu jigéen bi balaa nu koy maye mu sëy mu dem ci fukki at ak juróom-ñett. ndaxte code de la famille du Sénégal dafa ne fukki at ak juróom-benn war na noo mën a maye xale bu jigéen bi waaye xale bu góor bi moom fukki at ak juróom-ñett ñun tam ñu nekkoon nag nañu yemale xale yu jigéen ñi ak xale lu góor yi. ñaareel bi moom mooy article 196 bi nga xam ne dafa ne pàpp ji rek moom moo mën a taxaw reconnaître doomam te ñu gis ne bari na ay góor yoo xam ne dañuy def seen pexe ba pare rocceeku dem taxaw fële léegi nag ñu ne est-ce que xale boobu aussi dañ ko war a bàyyi noonu rek ba du xam papaam. tànneef gi ñu tànn député yi ak mair yi nag. am na lu ko waral. ndax maire yi tamit ñoom ñooy takk sëy yi ñoom ñoom ñooy joxe kayitu juddu yi kon ñoom tamit war nañu gën a xam lii ñuy waxtaanee nii lan la ndax. ci noonu moo xam député wala maire noppi na noo gunge. bi la xeex. kan wi dinañ ko teg ci table bi waxtaan ceeg réew mi naka lañ koy càmbaree naka lañ koy réviser bu ko defee yi nga xam ne coppite yi nga xam ne aaju na ci ak fi jamono toll ñu daal di ko ciy def. lu ëpp fukki at a ngi nii jafe-jafe yi ñu ngi koy gis ba tey naam ñu ngi ciy ñax askan wi chefu projet bi jàpp na ne lu ni mel ay mbir la yoo xam ne du yomb ñu jëlee ko fii. moo tax muy sàkku ci nguur gi mu dugal ci loxoom waaye tamit askan wi ngir ñu soppi doxalin